TV ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun ci présentation bi seen mbokk na Cissé ñu ci caméra bi ñu feggoo ak euh, góor Seck mbokk yi nag ñu ngi ci dëkk bu sell bi di Touba ci quartier bi ñu naan Xayra 2 tey nag ñu ñëw ci daara internat Minanul Baaxil Xaddim euh, nekk centre bu Soxna Awa Gajaga euh, mu Sëriñ moodu bu sa Jeng daara ji nag nekk bërëb boo xam ne dañ fiy jàngale alxuraan waaye ak français ak arabe mu nekk bërëb boo xam ne nag ay euh, ndongo yu jigéen ñoom ñoo fi nekk ñu leen di yar di leen jàngal diine waaye di leen jàngal tamit mbirum àdduna euh, tey nag ñu fekk si leen fii fa yéene ànd ak ñoom waxtaan donc ki nga xam ne nag moom lañ ko fa yéene seqal di soxna Dieynaba Faye du ñu def lu dul rek bàyyi ko mu présenté wu ak mbokk yi internet yi nga xam ne ñoo ngi koy seetaan soxna si asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay delloo nuyoo euh, man maa ngi tudd ba Faye man maa nekk secretaire bi fii ci Daara Minanul Baaxil Xadim Touba Xayra de waaw ginnaaw loolu ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen dalal jàmm fii di nuyu soxna Mously directeur sénéral bi nga xam ne moo sañc daara ji ak sëñ Saliou Seck bi nga xam ne liggéey bi mu ngi tege ci loxoom. daara ji ñu ngi ko sanc le 27 mai 2021 euh, fi mu toll nii ñu ngi ci 117 dongo yoo xam ne dañuy jàng ci daara ji alxuraan rek lañuy jàng euh, am na ci tamit école franco bi 32 yoo xam ne ci école franco bi lañuy jànge jàngee 32 personnes waa hmm. daara ji dañu gis ne ay jigéen rek la lu waral loolu. daara ji daara jigéen kese la li ko waral mooy jigéen mooy mànga sa yàlla. lépp ci ci moom lay tàmbalee suñu yaree jigéen jàngal ko alxuraan xamal ko àdduna daanaka defar nga defar nga lépp su dee nekkin bi xale yi nekk fii si daara ji ak wàllu njàng mi heure yi ñuy jàng ak horaire bi euh, xale yi bu ñu xëyee suba teel euh, dañuy euh, ndékki dem yeeg jàngi huit heures et ba midi et demi ñu wàcc suñ wàccee añ julli daal di dallu ba trois heures ñu dem jàngiwaat buñ jàngee ba noddu takkusaan ñu wàcc julli suñ jullee kontaan dem jàngi ba 18 ñu wàcc dallu suñ dalloo bañ noddu timis ñu julli dem jàngi marax suñ jàngee marax bañ noddu gee ñu julli wàcc reer reer dem tëddi ba fajar su këttiree jotee ñu yee ñu préparé dem jàngiwaat bañ noddaat fajar ñu julli sangu dem dem dallu ba ndékki jot ñu doog a ñëw ndékkiwaat. Euh, ay xaafisul quran yoo xam ne yu xereñ lañ nga xam ne ci méthode pédagogique bi nga xam ne ci lañ leen di jàngaleeg yooyu ndax am ngeen ci ay jàngalekat yu ci wàllu boobu nag am nañ ci ay jàngalekat yu xereñ lool ñi nga xam ne jël nañ leen fii ci daara ji ñuy jàngale ñooy ñu mokkal alxuraan la ñuy doon xam ko bu baax dégg ko tamit. ci lañ leen di jàng comme genre kii bi bu dee dañ def tajwid. waaw dañuy jàngal tajwid warsh la jàng. wasu la ñu xam naa incha allah dina am ci xale yi ñoo xam ne daanañu daanañu leen jël am na it menn mbokk moo xam ne mi ngi fi bàyyi ko ba réewum Argentine moom it ñëw ci daara ji nga xam ne daara ji fenn fu nekk ci àdduna bi la fa euh, nit jóge ñëw di sàkku si fii nga euh, xam-xam ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, kilifa ndongo yi muy seeni jur ci visite beeg yooyu nu muy demee ndax nit am nañu sañ-sañ saa su nekk ñuy def dugg génn wala dafa am ay jours ak ay heures yoo xam ne ci la ñuy visiter ñi nga xam ne ñooy ndongo. waaw du la neexee rek nga ñëw seet sa doom dañoo am ay jours yoo xam ne ci lañuy ñuy def visite chaque fin du mois bu nekk euh, entre le 10 bala la entre le premier ba le 10 am nañ ci ñaari jours yoo xamante dañuy wax ci groupe parents d'élèves ni leen jour sàngam mooy nekk visite bi ñaari fan lay doon. alxames lay doon ak àjjuma mooy suur yi nga xam ne xale yi duñ jàng léegi nag bu ñu ko waxee ci groupe bi parent bu ko dégg bu soobee yàlla di nga ñëw seet sa doom léegi visite bi mu ngi tàmbale 8 lay tàmbale ba 18h su xasee jeex rek jeex na ba subaati alxames ak àjjuma bu xasee jàll léegi jàll na ba weer bi deewaat lay nekk. côté sécurité ndax am na ndongo yi duñ accéder ci fu ñu toll di génn dama bëgg dem jënd lii dama bëgg dem jënd lii ndax yi ñuy soxlawoo yëpp dana am ci Ah, xale yi am na fi ñu nekk am na sécurité am nañ gardien buy toog ci bunt bi euh, waxtu 24 heures vingt 24 saa yi ñëwee di nga fi fekk kenn kenn ki day wàcc keneen remplacer ko bu dee xale yi li ñu soxla euh, lépp am na ci biir daara ji lépp loo xam ne xale yi dañ koy wuti ci bitti rek am na ci biir daara ji wala loolu tamit yaay daara yi ñu nekk xale yi lépp xal lépp lu xale bi soxla bu ko waxee yaay daara bi moom dina génn dem wutali ko andil ko ko ci mais xale yi moom du ñuy génn ñi nga xam ne dañoo internet booba ak léegi soo ñu doon wax ñaata ndongo ñoo fi mokkal alxuraan ngam xam mokkal nekk ay xaafisul xuraan ñaata la. booba ak léegi daal ñu ngi ko sañ ci année 2021 booba ak léegi am nañ fi juróom ñu mokkal alxuraan mhm, juróom ñu mokkal alxuraan mhm, am nañ fi tamit ñu wàcc ñoo xam ne wàcc nañ kaamil ñu ngi toppaat pour wala mokkal ni amal euh, li li ñuy wax genre conférence euh, xale yi di tari ngeen leen di jox seen ay shahada muy seen ay diplôme waa chaque année dañuy chaque chaque ñaari at lay am dañuy def conférence fi mu toll nii conférence bi di ñëw ñu ngi ko war a amal ci mois de août bi incha allah mois de out waa ci la ñuy def conférence xale yi nga xam ne mokkal nañ ñu jox leen seeni saxaada. Mhm. daara ji ndax Touba Xayra 2 rek la wala amaan na ci Touba Sénégal tamit ndax Touba rek lay am wala am ngeen ci ko ci yeneen région mhm. daara ji du Touba Xayra 2 rek amaan nañ beneen daara bu nekk daara Euh, boobu moo nekk daara ju mag ji boobu mooy cosaanu daara ji boobu moom lañ njëkk a tijji mooy ndeyu daara ji daal boobu lañ njëkk a tijji jot cee teg bii te incha allah borom daara ji am na yéene fépp ci senegal mu am fa daara bu neexee yàlla. wax dëgg-dëgg ki nga xam ne moom moom école bi taxawal ko di jigéen euh, di jàngal ay ndongo yu jigéen yore leen muy soxna musli boo ñu doon wax kan mooy soxna musli fan la bokk ak lenn ci ay qualité critère muy ay jikkooma ak suñu la doon wax soxna Moussi mooy doomi moo dugg sa Dieng mu Cheikh Mouhamadul Fadal euh, waajuram di soxna Awa Gadiaga moom boo waxee soxna Moussi Touba rek ñu ngi koy xam ci jàng alxuraan ku ko dégg ci loolu nga koy dégg ku koy gis tamit ci loolu nga koy gis yitteem yépp mooy e, daara jàngale alxuraan ay xale yu jigéen yor leen jàngal leen ba ñu mokkal alxuraan mu yóbbu leen ci école franco arabe ba ñu jàng ba am seen seen seen niveau wax dëgg yàlla ci daara la yëngu léppam tamit daara la. Argentina vine Argentina para estudiar aquí Senegal un libro de Corán este fala de Dios este muy raro sama Soxna Naata hija de Mariama Bamba y Soxna Bamba e Serigne Bamba Ñang Sohna es canal no una primera vez que vos hace una entrevista cuando más chiquito nosotros grabamos uno video vos charla de Corán ahora está acá ahora um, cuánto tiempo está en aquí Senegal ahora puede hablar bien a wolof primero asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh yéen y a todos ustedes les estoy hablando y agradeciéndoles a todos. Y también eh, estoy acá, es primera vez que hablo acá en Senegal. Y hoy, es un día muy importante porque estoy acá con mi prima Jari, que también es de allá de Argentina, que, la, Sí, la, mi tía Leila, esa es tu hija. Y me vino a, para estar al lado mío también y estar hablando conmigo y charlar, juntarnos así y estudiando también. Ella también ahora está en el libro también. Está muy bien. Acá es muy divertido y charlando con las nenas. Las nenas también hablan con vos y se juntan. y a veces hacemos como unos juegos. Acá es muy divertido, no, no falta nada. Comemos. No extrañaste tu mamá, tu papá. Nosotros sabemos un argentino, no hay como nosotros. Un argentino muy cerca la mamá, muy cerca la papá. Mucho tiempo vos no tu mamá, no tu papá. ¿No mal? No, un poquito, pero a veces me da la cosa de llorar. aguantar, tranquilo, aguantar, por favor. Sally, tu hermana está Helcom. Mucho tiempo viene aquí a visitar o vos no le vi todavía. ¿Tu hermana Sally? Un poquito. ¿Ese libro يطعن حزب كيتشمع لا لا يحب لا يحب estudiar bien ahora bien sí cómo hace con tu compañera con todos charlamos siempre eh. sí hablamos un montón de amigas acá Y también Jade también tiene montón de amigas acá. Okay. Un día yo vi un video, vos rasaron, um, rasar a ah, côté de Serigne Mountakha, le Khalife général de Mouride. ¿Vos conocés Serigne Mountakha, no? Sí. E, esa fue la primera vez que fui allá en la calle de Mountakha y había recitado el Corán. El día que siento. ¿Mm? El día que siento cuando estoy me puse muy contenta, muy feliz. Uh Y también mi corazón, cuando estaba recitando hasta el punto de abajo, ahí cuando estaba terminado, me, puse muy contenta, muy feliz y me agarró am na solo lool sëriñ bi tey xolam seet na guy waaye xelam dal na waaye gën ngaa dolli yaakaaram ci liggéey bi kon noonee rek la jërëjëf Mbacke Balla Puede rezar un euh, tajwid cualquiera de, de parte de Corán, una euh, surat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم Muy bien, muchas gracias. Este muy raro. Kurna y Jada Argentina venga acá Senegal estudiando Corán. Argentina la verdad es musulmana, pero muy poco. La verdad es muy raro. Nata, muchas gracias. Gracias. Yo. Algo de Wolof saludando aquí tu mamá, tu papá, los, eh, tu amiga, tu amigo. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yéen ñëpp maa ngi leen ni ñëw di leen siyaar maa ngi maa ni tudd Soxna Fatima Naata Ñang maa ngi jóge Argentine ñëw fii Sénégal daara Soxna Muslim Mbàkke bu xa Touba Xayra fii laa ñëw fii di jàng si daara ji laay jàng am na 2021 laa ñëwoon am naa am naa tey jii 2024 ma maa ngi jàng di tool toolu wal muxsanaatu wal muxsanaatu laa tool ak kii ak tey ni benn bis boo xamante sama tonto bi dafa ñëw seet seet si ma daay may laajte di affaire daal yooyu léegi mm, daf daf may laajte mu ne fu fu ma toll ak ma toll ak ma xam dama nekk si jàmmu dara ji ba xam neex na ak say xarit ak yooyu waaw di di ma laajte sama rak sin saaliw bi nekk xel koom moom ak sama yaay ak sama papa ak sama rak ji xarife yaayam lii la ak la la moom dafa ñëwoon fii léegi pour wéetal ma tamit moom mu jàngale tamit man tamit di ko toppatoo ñu àndandoo ba keroog ñuy mag daal ñibbi léegi nag moom xase na ba dugg téere mooy tollu aroyata lazi mooy tollu aroyata lazi yu kas bi diin euh, moom jàmbaar na tamit dafa bëgg tamit jàng si alxuraan moom tamit loolu bëgg na ko tamit bëgg na ko chaque jour mu may laajte ñëw si man di ma laajte tamit nan ba lii lan la lii ak laa ma koy laajte di ko ko wax ma koy wax noonu man loolu kese maa ngi si jàmm bu baax. alhamdulilah yàlla na jàmm sax yàlla na yàlla defal la tawfeex bu baax a baax a baax. Urbano no, no, habla, no habla Wolof ahora. Poco tiempo aquí, Senegal. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Hadi. ¿Cómo estás aquí, Senegal? Voy vine para estudiando aquí una internación de Sonawa Gallaga. ¿Cómo estás aquí? Bien. Está muy lindo. Muy lindo. Sí. estudiando. Este año pasado. ¿Qué horas vos vio ahora? Ay, tal vez yo captibuno de... ¿Puede hablar algo de Araita? أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو لهم ولا طعان المسكين ¿Tu mamá te extrañas de algo? Sí. ¿Cuánto tiempo no habla?

te daanaka loo ñàkk-ñàkk dégg boo bëggee daanaka de day yomb te daf koo bëgg looloo tax mu xaw ñoo yomb lool ba doon daf koo xaw a bañ tuuti rek daanaka dañoo xaw a amal gàllankoor mais daf koo bëgg doon ci rayante lool jàmbaar ci nag ndax fi mu toll nii li ko dese bariwut mu ngi dese juróom benn juróom-ñaari te benn bi ci la nekk nga xam ne fi mu toll nii juróom benn moo ko dese mu wàcce bu suñ borom defee ci dënd mu war a mokkal mu mokkal incha allah buñ ko yàlla defalee fan yi ñu ngi gis euh, mu doon jàng ci kanam sëñ Mouhamadou Mountakha ak euh, taj wit li ñu jiwloo laaj foofu lu tax ngeen préféré ko mu jàng ak itam tajwid bi ngeen koy jàngal ndax yomb na ci moom. loolu moom bi ma ko jëlee pour mu ko doon tari pour soñ yeneen moroomam yi rek ndax bu toogee ci classe bi daanaka lu ci ëpp da ngay dégg baatam ci kaw bu dul loolu comme alxamisa àjjuma yi nii soo leen joxee seen bind bi ñu war a jàng boo dikkee yenn saa yi moom am bindam sax da koy ma bëgg leen wan ne leen comme moom li jàmbaar gi mu wane foofu moo tax ma tànn ko ma dem foofu tari mais su ko keneen wane woon tamit moom laay jël. am na benn rakam bu ñëw lu yàggul jógee Argentine kon ndax dangay lancé appel pour ñi nga xam ni dañu nekk Argentine am ay tubaab ba ci sax ñi nga xam ni dañu am ay njaboot te bëgg njàng bu baax mënees na ko fekk fii. waaw mën na koo fekk fii incha allah ndax rakkam ji daanaka diir bi mu fi ñëwee gàtt na lool mais suñu borom def na ba fer na ijji ba fi mu toll nii mi ngi jël téere soo juumee dañ ne aroyta la toll jàngalu ma ko nag beneen yaazeda moo koy jàngal mais dañ ne comme ça dem na ba fer ijji ba jël téere toolu aroyta. salaamaaleykum ñu ngi leen di ziar ñu ñooy représenté yaayu daara man la soxna Banel Mbodj di représenté yaay daara xale yi ñoom la ñuy toppat toppatoo nii ñoo seen yaay di leen toppatoo bu ñu yewoo 4 heures du matin xëy jàngi wàcc 6 heures ñu sang leen bu ñu sangoo ba pare. ñu préparé leen pour ñu ndékki bu ndékkee pare huit heures et demi ñu dugg bu nu wàccee huit bu ñu duggee huit heures demi heure bi la ñuy wàcc midi et demi léegi après si kanam tuut ay une añ bi pare ñu yekkal leen taajal leen bu añee ba pare ah 14 heures ñu dem tëddi pause tuuti ñu pause tuuti deux heures deux heures de temps la ñuy pause tëdd nelaw quinze heures la ñuy dugg waaw macha allah lekk ñu baax na. set na parce que buñ xëyee ñii ménage buñ xëyee dañuy gaaw ménage ba mu set ñii togg tamit ña ngi sa bi defar ba mu baax macha allah xale yi tamit dañuy ndékki ba suur bu añ bi ñëwee tamit dañuy añ ba suur. loo bi gën alquran xelu laa ku xool gis xam ne li dadu naa nañu dem jàngi téere bi gën alquran nuurul ak leneen ani maa la bëgg sama xol ku laali daanu dal ci sa kaw te buur yàlla laa la aar ba nga raw xam leen ni noon bi daal masha Allah masha Allah daal waaw daal di waaw waaw ak ak yónni ay ay yonent mooy ay ndaw ndaw yi nga xam ñoom la yàlla di yónni ci nit ñi léegi ñooñu nan lañ leen war a war a gëmee aywa léegi lan lañ ci wax a tasdiq bi anna allah subhanahu wa taala arsala ila xalqihi rusulan li ay li yursiduhum ila ay ila ila tariqil xayri wa yasudduhum an tariqi ay ash ashar kon yonent yi dañ leen a yónni ci ci nan ñan lañ leen yónni ci nit ñi lan moo tax ñu yónni leen ci nit ñi pour ñu orienter leen ci yoon wu yoon wu baax teg ou bien sa forme de l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe du verbe du verbe conjugué donc ici la plupart des verbes se conjuguent à l'auxiliaire à l'auxiliaire avoir comme par exemple le verbe sanitaire, le verbe sanitaire conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le verbe, pour donner un exemple, le verbe danser, j'ai dansé, j'ai dansé, le verbe manger, manger, avoir mangé, j'ai mangé. Donc c'est la raison pour laquelle la plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire à balle. Mais par exemple, certains verbes rek se conjuguent avec l'auxiliaire et par exemple on a le verbe. asalaamaaleykum man maay Mor Ami Guèye maay directeur école Cheikh Mouhamadou Moutala Mbacké fii Xayra 2 depuis trois ans maa ngi fi. waaw maanaam école franco arabe bi nag dañ ko intégré ci daara ji maanaam école la boo xam ne jigéen ñi xale yu jigéen ñi nga xam ne mokkal nañ daara mokkal nañu alxuraan ci daara ji ñooy wàcc si ci école bi. buñ mokkalee alxuraan ba tari ba noppi dañ leen di dugal ci école bi ñuy def fi trois ans trois ans yoo xam ne français la ñuy def ak arabe bu noppee trois ans yi au bout des trois ans ñu def seen examen CFE ak entrée en sixième ku ci at entrée en sixième ñu orienté la état bi orienté la ci dans les écoles publiques dans les CEM publiques niveau CEM de la yoroo am maanaam classe spéciale la dañ koy def trois ans maanaam CI ak CP la ñu boole muy une année ñu boole CE1 ak CE2 muy 2 ans ñu boole CM1 ak CM2 muy 3 ans pour élèves yi bañ a tardé xam nga bu ñu wàccee daara élèves yi dañuy âgé léegi pour ñu bañ a âgé pour âge boobu nag bañ leen a raw tam pour ñu am xam xam dara ci français bi tam moo tax buñ 3 ans lañ koy def au bout de 3 ans la ñuy def seen examen fi mu ne am nañ 40 élèves waaw non ren mooy suñ première promotion CM2 nag waaw depuis 2021 lañ ko commencé. def trois ans ren yi 2024 ñu de ñu am cm mais présenter nañu élèves yi nag au CM2 ba am nañ enseignants yu xarañ nekk am na ñaari enseignant français ak ñaari enseignant arabe élèves yi jàmbaar lañ parce que def nañu essai xam nga fii dañuy def essai départemental maanaam euh, ñoo ko waa département bi dañuy organiser ay essai am na ñaari essai yu ñu defagun fi mu ne nii mais deuxième essai bi ñu génne rek nous sommes nu ñooy ñaa ñaa deuxième lañu classé wu ci euh, kii bi ci essai bi. nekk fii ci daara mi Minanu Baaxil Xadim kër Cheikh Moustapha Bassir di daara yi soxna Muslimatu Mbàkke mu nekk daara joo xam ne daara ju am am solo la. ndax soxna Mously daanaka yàlla dafa ko defal taw tawféex mu teel a yitteem yëpp nekk jàng ak jàngale ci jamonoy 2009 la ubbi woon daara fële ca daaru na muy daara ju mag ji gannaaw bi nga xamee ne daara ja dem na ba fees nit ñi walbatiku di ko yët seeni doom ci la ubbi daara ji fii ci xayra nga xam ne ab école moo fi jiitu woon di ab jardin gannaaw gi mu def ko daara daara jooju nag. bokk ci daara yi nga xam ne daara yuñ bàyyi xel la muy daara yi soxna musli yi nga xam ne daara ja la daara la joo xam ne dafa boole daara ak école gannaaw xale bi su ko jàngalee alxuraan ba mokkal du ko bàyyi waaye da koy gunge ci njàngaleem addunaam nga xam ne xale yi fii cycle bi dem na ba BFEM incha allahu taala nga xam ne yàlla dogal na ren la ñuy njëkk am suñ première promotion nga xam ne suñ noppee bëgguñoo bàyyi xale yi waaye dañuy continuer ñoom ba BFEM waaye soxna Musli yàlla defal ko tawféex fu ne la nit di jëlee doom di ko indil bitim réew fu mu mën a doon waaye yàlla mi ngi ko ciy defal résultat fu ne xale mi ngi fay jógee di ñëw fii di jàng alxuraan di ko mokkal soxna su jàmbaare la soxna su jare jàppale la waaye soxna su euh, gëm liggéey bi la te taxaw ci te lépp lu mu am lu ne it ci la koy def kon su ngeen fi ñëwee tey ngir def euh, lii ngeen di def ci daaraam ñu leen di bàyyi xel ne yéen a ngi koy defal koo xam ne ku ko mat la ku ko jar waaye kuy liggéey liggéey bu rafet rafet la ci liggéeyu lislaam bi moo waxoon ñu ñëw jotale ay kàddu cantam ak ngërëmam ci yéen ci lii nga xam ne moom ngeen ñëw def si tey ji ci daaraam nga xam ne moo bëggoon a teewal boppam yàlla dogal mu am ngànt daal ñu fi yebal képp koo xam ne bëgg nga ne bëgg nga ñoo jot soo wootee ci 77 395 68 68 77 395. 68 68 su fekkee numéro soxna Mously 77 636 08 87 77 636 08 87 ku ko woo rek incha allah lépp loo bëgg a xam ci daara ji wala bëgg fi indi sa doom wala lu mu mën a doon incha allahu taala dana sotti ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah